alhamdulillahi xatta yarda wassalaatu wassalaamu ala sayidina muhammadin il murtada wa ala alihi wa saxaabatihi dhawi tamkiini wa rida wa man tabiahum bi ixsaanin ila yowmin yalqa almuslimuuna alfawsa wa rida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 fas yéene sof ak yow li ma sosoon ak yow ci képp ku génn àdduna nañu lay wara waajale waxoon naa la ca dara démb dafa am nag lu mat juróom-ñeenti yëf yu ñu sunnaal bu nit ki génne àdduna ñu defal ko ko juróom-ñeent yooyu laa lay bëgg a waxal tegtaloo ko ci mbind boroom xam-xam yi ku mel ni imaamu Malik ak imaamu Shafii yu imaamu Ahmad ak Abu Hanifa ñoom timit ñi ballaloo wax ji jële ko ci waxi yonent bi sallallahu wa sallama ndax magam yàlla yu mel ni ñoom ñoo mën a dégg waxi magam yàlla mu mel ni sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ci njëkk sunnaal nañ nit ki bu génnee àdduna rekk nañu gëmmal bëtam ya ndax bët ya dafay buqeeku ànd ak génn ak rooxu gi bu dee ab jullit la bu demee bay bëgg a génn àdduna dafa am lu ñu tuddee miraaj ci la palaawu wa aljana nekk su boobaa jullit bi dafa koy xool ñi ko cay wan luus maam ya ne ko yaa ngi nii war a génn ci kër gu soof gi gu ñàkk solo gi di àdduna di kër goo xam ne lépp la waaye lépp la waroon tey nag yaa ngi war a fanaani wala nga yendu gi ci kër goo xam ne mooy kër gu des ga mooy kër ak xéewal ga mooy kër ak jàmm ga mooy kër gu mujj ga di kër goo xam ne lépp la waaye dara warul la dara warul la dara warut la timit naka noonu tamit yow boo fa yeggee yaay war lépp te dara du la war xool googu muy xool luus maam ci aljana dafay taaru ba mu xëy xut maanaam xubbi bët ya ba ba ñu roccee rooxu ga rekk bët ya ànd ak buqeeku buqeeku ga ñi bëgg nag yow mii boo ñëwee nga delloowaat sëlëm ko delloowaat bët ya ci ni mu buqee ko am na ci ñoo xam ne bu ñu tolloo ci sukkuraat dana xam ñu leen di wër ñu ne leen gisu leen lalu wurus bii xet ak parfum gu neex gii ndax xeeñ na leen ndax yéen a ngi jàkkaarloog immeuble bii loola mënoon naa ca lim góoru yàlla yu bari waaye fekk nañu jegeek ñoom gisuñ ca loola dara ñoom rekk ñoo ko gis waral nag xool googu ñuy xool loola mooy dem ba buqi seen bët ya ñi bëgg nag yow boo ñëwee nga sëlëm ko looloo waraloon yonentu bi sallallahu alayhi wa sallama keroog ba abi salmata génne àdduna yonentu bi dugg ca fekk bët yaa nga buqeeku mu gëmmal ko jegeñaale ñaale yaag mbokk yaag soxna yaag dëkkandoor yépp di jooy yonentu bi ne bu leen wax lu dul yiw lépp lu ngeen di wax rek malaaka yi dañ koy gëm te moom la ñu yóbbal suñu borom keroog la yonentu bi ne yow yàlla yàlla nga jégal abi salmata yàlla nga yëkkati darajaam ca ñun gindiña yàlla nga ko wuutu ci njabootam gii ci li mbay gannaaw yàlla nga ko jéggal jéggal ñu yow mii borom mindee fii yow yàlla yàlla yaatal xabroom ba yàlla nga ko leeral lii la yonent waxoon boo demee Umu Salmata moo koy nettali moo ko fekkee mu ne daxala nabiyu sallallahu alayhi salmata wa qad shaqa basaruhu fa axmadahu fa sayyaha naasun min ahlihi fa qaala laa tad'u ala anfusikum illa bi xayrin fa in almalaikata yuminuuna ala ma taquluuna summa qaala allahuma igfir li abi salmata warfax darajatahu fi lmahdiyiina waxlufu fi aqbihi fi lgaabiriina waxfir lana wa lahu ya rabbal alamin allahuma afsih lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fii imaamu muslim moo génne hadiis bi tabaarakallaahu solo na ko ci saywul muslim ki nga xam ne moo jëlee hadis ba ci yonantu ba nag mooy ummu salmata mi soxnaay abi salmata kon hadis bi ci la imaamu malik sukkandiku ak imaamu shafiiyu ak imaam ahmad ak abu hanifa ñu ne ab néew bu génnee àdduna bët yëpp bu boo ñëwee nanga ko sëlëm boo koy sëlëm nag sopp nañ nga wax bismillaahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allahuma yassir amrahu wa sahil alayhi ma baadahu wa asidhu bi liqaika wa jaal ma xaraja ilayhi xayran mimma xaraja anhu dañuy sopp booy gëmal bët ya nga ne maa ngi tudd yàlla ci yoonu yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama yow yàlla yàlla nga yombal mbiram moom néew bile yàlla nga jàppandal li nekk ci gannaawam yàlla nga ko texeel ki sag daje ak yow yàlla nga def fi mu jëm gën fi mu génnee lii booy sëlëm bët ya moom ngay wax kooku mooy bu njëkk bi ñaareel bi sopp nañ yaxi si kiñam yooya bu hubbee ko na nga ko dellooxaat ndax ñaareel dafay mel ni buy génn àdduna bu ñu rocc roxu ga léeg-léeg gémmañ nga mën naa hubbeeku mel ni ku doon bébbali dem ba ca digg ba rekk mu takk su boobaa boo ñëwee delloo xaatal ngaamam ya tabaarakallaahu bañ mel nam waroon a mel kooku dañ ko defa bokk ci sunna yi ñi bàyyi ko ci xel ñetteel bi ay cëram dafay kàddaaral dañuy bëgg nga nooyal ko soo mënee am si déem ak lu mel ni moom di ko ko nooyalalee ba cër ya mën a delluwaat comme nam meloon waaye bul ko bàyyi noonu mu ne lasar rek moo tax fukkaaw yi di wax ne wa yustahabu talyiinu mafaasilihi wa dalika bi shaddi ziraacihi wa irqaahihima wa bi shaddi rijlayhi wa irqaahihima maratan aw maratayni wa bi shaddi faqdayhi ila batnihi wa raddihima yii dañ koy bëgg bu génnee àdduna nga defal ko ko bi ci tegu bu génnee àdduna yëreem yim soloon muy ñeenteel ba dañuy bëgg nga summi ko bu soloon ab jiin sumil bu solee xaftaan sumil bu dee mag la wala xale mu solab caaya sumil dindil yëre yooya bu ko defee nag nga muur ko euh, ndax yëre yooya moo doon wattu tàngooru yaramam wi boo ko ca bàyyee rekk dafay gaaw a yàqu moom néew ba moo tax ñu bëgg nga summi yére yim génne àdduna su ko defee man koo muur loolu day tax buñ ko yéexee suul tamit du gaaw a yàqu euh, juróomeel ba sopp nañ nga yëkkati ko fu xaw a kawe lu mel ni benn lal bu ndaw walla nga jël ay xànq walla nga jël ay móol bañ koo teg ci suuf di ko ca teg ndax mi ngi nii lu ngeen mën a wax mën na leen a dégg xam na yëg-yëg dafa mënta tontu rek melentaan sax bu ko màttee dafa koy yëg boo ko dugalee ci morgo bi glacé googu ñu koy glacé dafa koy yëg dafay métti dana koy yëg maanaam waaye bu bu texee nag bu nekkee ku texe yooyu yëpp euh, yëgu bànneex rek day mel ni ku duggoon ci néegam rek taal kilim bi moo tax nag ñuy bañ da koy teg ci suuf yenn yent yent ya di ko fa fekk lu mel ni jiit di ko fett wala jaan di ko matt wala melentaan yi di ko fa matt loola lépp dafa koy yëg moo tax ñu bëgg nga yëkkati ko waaye tamit tabaarakallaahu bëgg nañ su fekkee ne dañ koo xaw a yéex rob di xaw a yéex di xaarantu jegeñaale yi tuuti rek su boobaa mën ngaa jël lu mel ni benn dammitu muul teg ko ci biir bi yi nekkoon ci biir biir bi yëpp mën a génn tabaarakallaahu ci ay sobe balañ koo dem di ko defar yooyu yëpp mën a génn ba set yi yooyu yëpp bëgg nañ ko ci moo taxoon yonentu bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nag ko anas moo doon moo doon bëkk néegu yonentu bi mu ne woon ci hadis bopp yonentu bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax anas di ko nettali ne daxu ala batnihi xadidatan fekk booba ku tudd tuddee abdullahi ibnu adam mu ne suñu mbaa yàlla di anas dafa génn àdduna mi doon mindaanu yonantu bi moom mooma nag mu ne kon nag këral leen ca biiram ba lu mel ni ak weñ mu mën a génnee li nekk ci biiram te lii man mi di abdullahi maa ngi ko jëlee ci anas anas tamit lu mën a wax mi ngi ko jëlee ci yonantu bi bi ci tegu sopp nañu néew bi gannaaw bi ñu sumee yëreem yéen nañ ko muur buñ ko mënee muur ak yére yu tal wala lu mel ni mbàjj wala ay ay ay seru rabal nga xam ne tamit du nekk lu yaraax ba ngay mën a jàkkaarloog jëmm ja waaye da nga xam ne moo tëdd nii rek looloo waraloon ngir xadisu Aïchatu mu ne na yontu bi sallallahu alayhi bi mu génnee àdduna dañ ko muur yére yére boo xam ne bi saw bi xibra moom lañ ko jëlee muy yére boo xam ne dafa am ay dessin ndax dañ ko dafa am ay njam loolu xadis la bopp imaam ahmad muslim yëpp solo nañ xadis bi su ko defee nag euh, muur googa day waral nga ñoŋeel ko wala si ñay seetaan di xool dana ko ñoŋeel timit ba awraam kenn du ko gis li ñuy xool su ko defee timit ñu jël yére ya teg ko ko ci kawam noona juróom ñaareel bi ba juróom ñetteel bi dañuy sàkku ñi teewee néew ba ba bañ koy dencee de leen wax yiw tudd leen yàlla jéggalu leen yàlla julli leen ci yonantu bi sallallahu alayhi wa bu leen fa nekk di yore seen portable ñi lay woon ak maa nekk ci néew bi damay sangak dañ koy jullee déedéet fayal sa portable bi yooyu yëpp nañ koy bàyyi xel di teewlu yàlla ci jëf ju màgg ji mu def te moom kenn rek ko man te sañ ko keneen ku moom bu ko defoon rek yet yi dal kon yooyu yëpp nañ ko ciy bàyyi xel dana dagan tamit jamono ji néew bi génnee àdduna nga tiim ko boo ko xoolee jege ñaale ya xool comme neex mën nga koo fóon mën ngaa fóon xar-xaramam ba abubakar siddiq keroog ba yonentu bi génnee àdduna moo ñëw mu tiim ko tabaarakallaahu moom abubakar jël gémmañam nga dëpp ko ci bëti yonentu bi salaa salaam ñaari bëtam yu tedd ya fóon ko jël loxoom ya teg ko ci ñaari xasabo yonentu bi ne yaa nabiyaahu yaa safiyaahu wax na tamit ne yow yonent bi yaay ki nga xam ne dund nga teey génn àdduna teey juróom-ñeenteel ba bëgg nañ ci ñi méngoo néew bi bu génnee àdduna rek nañ gaaw fay borom ya lu mu xamee loon nit ñi nañ ko fay lu ko nit ñi xamee loon nañ ko fayeeku lu mu war a fay nag ba mu génnee àdduna diir ba jot na duñ xaarati heure bële luñ ko waroon a fay fañ ko date woon rek buñ ca heggee foofa lañ koy fay way donn ñi su ko defee kon nag loolu lañ ciy bàyyi xel yonent bi dafay wax ne bakkanab jullit dañ koo xaj ci diggante asamaan ak suuf feek ba ñuy fayee ay borom nafsul mu'mini mu'allaqatun bi daynihi xatta yuqdaa anhu imaam ahmad ibnu majaha su ko defee kon nag koo yoreel ci bor nañ gaaw ñi fay ko nu gën a gaawee ñu gën caa taxaw nu gën a gaawee moo taxoon abi nadrata jëlee na ci Saad ibnu Atwal mu ne sama mbokk ma dafa génn àdduna bàyyi borob ñetti téeméer ci ay dërëm ba bàyyi njaboot ma bëgg a jël ñetti téeméer dundalee ko njabootam ngi ndax lu rekk fay xalal ma ñëw ci yonent bi wax ko ko yonent bi ne ko inna max mahbusun bi daynihi faqdi anhu sa mbokk mi dañ koo tëj ci borom ya demal nga gaaw nga fayal ko ko lii la ko yonent bi wax sallallahu alayhi wa ne ko demal nga fayal ko ko de bu ci nekk di xaar dara demal nga fayal ko ko su ko defee nag mu dem fay ko ba mu des ñaari diinaar benn jigéen ñëw ne ko xamel na ma ñaari diinaar mu ne ko kuy sa seede mu ne ko xaw seede mu du jëm ci yonent bi wax ko ko yonent na ko fa atiha fa innaha muxiqatun wallaay jox ko ko moom moom a ko la kon nii la xaddis bi tëddee mu ne xaddis bi dafa ne an abi nadrata an saad ibn atwal anna axaahu wa taraka thalaatha miati dirham wa taraka ciyaalan fa aradtu an unfiqaha ala ciyaalihi fa qaal nabi saa sallam inna aqaaka maxbuusun bi daynihi faqdi anhu fa qaala yaa rasulallaahi laqad addaytu illaa diinaarayni iddacathuma imraatun wa laysa lahaa bayinatun qaala fa atihaa fa innahaa muxiqatun imaam ahmad moo solo hadiis bi ci wéeruwaay boo xam ne bu rafet a rafet la kon nag nañuy fay bor yi moo tax boo nekkee ilimaan ju am xam-xam bu ñu la tëggalaleem néew bala nga koo jullee waxal ne ana kan ci jegeñaale yi moo gàddu bor ya ki taxaw ne moo ko gàddu tamit nag mu na wóor ne ko ne ba mu ko waxee rek ki dee dara waratut ko lépp wàcc na ko su boobaa moom tamit na lu mu fay bor ya waaye bu mu fa nekk ne man kat dama doon sóob rek mbooloo mee taxoon xaw ma nu may def rek te ko man may taaw nangam ak nangam loola baaxut loo mënul def bul ko wax li ma taqul na ma laa tafaaluun kabura maqtan indi laa an ma la tafaaluun loolu alquran wax loolu baaxut nañ koy daw bu baax a baax te jéem koo sori kon nag nañ koy bàyyi xel euh, di ko daw di ko dawale Ah, nañ koy daw te di ko dawale bu yàlla dogalee nag nga génn àdduna amee bor amoo ko la ko fayal te bi ngay dund def nga góor góorgóorlu ba sonn amoo loo ko fayee boo lëggee yàlla ci mbaaxam moo lay fayal ci màngasini yi wóom ya yonent bi dafa xaj xajatul wi widaa xarmal rek commencé ñaan yow yàlla xaq yi dox sama diggante xeet wi ak seen bopp ci diggante xalal yi ak yi maa ngi lay ñaan sa magasin yiw yii lu fees la tepp ak yiw waay waaye yàlla nga leen ko fayal mu xarmal wër kaaba gi kenn tontuwut ko ca ñaan nga dox safa ak marwa kenn tontuwut ko mu dem minan def fa lam fa def kenn tontuwut ko dem arafa ci ngoonu arafa gi rek ñu gis ko ma ngay ree bañ yaa nga rafetal rafet weex tal ba jaatoor benn saxaabi yu ne ko waay waay yonent bi looy muuñ sa bañ yee rafet mu ne ko waaw waaw bi ma xarmalee ba léegi dama doon am lu may ñaan sama borom tontuwut ma mi may door a tontu léegi tamal ma ne ma sama bori xeet wi boo lëggee moom yàlla koy fay ca màng si ni yiwam ya loolu nag naqari na iblis seytaane ba ma nga nee di jooy jël suuf di ko sotti ci boppam bi loolu laay ree kon ñaari ree laay ree dama ree ngir li ma yàlla tontu ma bég ci di muuñ di muuñ tamit iblis mu bon mi bëggoon a jaaree sama xeet wi ci fii te la mu bëggoon sottiwut man tamit may muuñ di ko di ko di ko di ko ree ca loola moo tax kon nag loola euh, ñu ngi ci namm ku mënutoon a fay ba amoo loo fayee soo lëggee rek mën ngaa am ku la fayal waaye yow nag su fekkee ne mën ngaa fay bañ a fay ba dee nag bul yéegal sa bopp ca ñooña de bàyyil xel su bopp nit ki lu mu mënut lu mu mën waru koo ñaan yàlla dafa war a góorgóorlu def ko li nga mënut nag moom ci nga koy saana ñaan yàlla bu la ko mayit bu ëllëgee moom dana la féetewoo foo mënutoon a féetewoo sa bopp su ko defee tamit bi ci tegu bëgg nañu testament bi waa ji defoon avant muy dee nañ ko gaaw génne te gaaw wëyal ko ba muy génn àdduna dafa defoon testament na ma diw ak diw sàng na ko ñoo ña sàng na ma diw ak diw sàng nañ ko sàng na diw jullee ñam wax nañ ko jullee nañ ma rob dëkk sàngam ci palaas sàngam lam waxoon lépp nañ ko jéem a wëyal bu baax a baax a baax a baax a baax moo taxoon benn waa gi doon jàng ci benn sëñ daaraam ànd ca mbokkam bi ma sëñ bee leen dàng jàngal alxuraan bañ man mu jàngal leen laxdar yi ba xalil ñu géejuwu ci xam-xam may leen tariqa may leen i lijaasa ber leen kenn ka wax mbokk ma ne ko su ma génnee àdduna sëriñ bii fi ñu jaar ak moom lépp tuutale bu ma jullee ah taalibe ba génn àdduna sëriñ ba sol mbubbam sama taalibeem génn àdduna maa ngi koy jullee ji te dafa ci am sëriñ yoo xam ne dañoo bëgg bëgg bëgg daraja bay xëccoo nit ku dee nit ki ba muy dund mënoo ca moom dara léegi léegi mun naa am doon te yaa doon sëriñ mën naa am feebar bi mu génnee àdduna sax seet ko. amul benn ordonnance boo ko ca taxawee mu dem a dem ba bëgg a génn àdduna ngay jaay daraja jublu ca rek bëgg a récupérer maanaam ak njabootam ak la ca aju loolu lépp xamul solo ku bëgg ko la topp deexal yàgg naa koo wax kon yooyu yëpp jëru ko di xëccoo daraja bay xëccoo ko génn àdduna ngir ak njaboot gi mu bàyyi gannaaw loola matu ko su ko defee nag sëriñ ba sol daraay maa koy jullee sama taalibe dee xaa bëgg daraja lool ba mu ñëwee ba bëgg a jege rek mel mbokk ma ne ko ah sëriñ moom da dafa bàttali woon ne bu ko jullee ah sëriñ ba tamit arrière euh, ilimaan gi jullee ko ba ñu ñibsee nag moom rëyut moo taalibe bi ba ne ko waaw yow fi ma jaar ak yow jaar fekk sa mbokk mi tey mu may fayee lii lii lu ko waral mu ne du dara mu ne dafa gis ne diiréb lim nekk ci sa loxo loo mosa a danga koy dog loo mos a téye kenn mënu laa ñaan njekk ba nga nangul ko ko kenn mënu ci dara euh, yow daal loo téye fow mu dog mu gis na nag jullee niiw du dara lu ñaan yàlla njekk rek allahuma ixfir lahu warhamhu allahuma innahu abduka wa bunu abdika wa bunu amatika demeet ba yooyu yëpp jeex te mu yëg ne ku dul maye njekk kenn du lañ may kenn du la may njekk te mu yëg ne yow comme daanoo maye njekk boo yàllee boo ñaanee yàlla njekk ci moom du ko ko may te kon moom mu torox mu dem safara moo taxoon mu ne daal yow bu ko jullee nañ seet ku daan maye njekk rek mu jullee ko kon gis nga taalibe booba moo doon taalibe ci sëriñ bi waaye mu gën di sëriñi sëriñ bi ndax dem na ba génn àdduna jox ko leçon boo xam ne musul koo jàng ci téere moo tax sëriñ ak taalibe ay nawle wante lañ sëriñ du buur ab taalibe du dakk waaye kenn ku ci nekk sa njariñal sa morom nga ndax taalibe bu matee taalibe léegi-léegi bëgg naa dugg ci giraawaal yi mu war a wax lu mu warta wax xelam daj ne sama sëriñ fi ma teg ni ma fonkee lu mbooloo mi bari bari sama tur lay jaar fu lu nekk mi ma koy defal waaye waaye waaye ku ne woon maay wax lii wala maa fi def njombate gii ku ko ko wax du ko gëm kon daal danaa baxi lii ngir yàlla ak sama sëriñ bi ah sëriñ ba tamit léeg-léeg mu ne man samay taalibe fi ñu ma teg dëkk bu ma wàcc ñu soppi seen ñam ya soppi seen lal ya soppi seen togg ya soppi seen lépp ñenn ña sax dañuy barkeelu bay barkeelu ci fu ma dëgg mbaa fu ma toog waaye waaye ñoom da ku leen waxoon ne maa fi wax lii mbaa maa fiy jëf lii duñ ko gëm kon danaa ko bàyyi ngir xorma ju rëy jooju yàlla xormaalee ko ci ñoom kon su boobaa yow sëriñ bi yokk nga ci say taalibe yow taalibe bi yokk nga ci say sëriñ soo ko gisee noonu rek moo xayaf te noonu tamit la demee noonu la ko seex na Tijaan yi góor ak yàlla gu tedd ga gisee woon tabaarakallaahu kon ñu ngi ciy bàyyi xel xam ne kenn ku ci nekk yaa fi bàyyi sa morom. tëriñ lum rëy rëy rëy boo amul taalibe dootul ko. ab taalibe lu mu rëy rëy boo xamul sëriñ doxatu ko kon kenn ku ne da ngay xam sa moroom rek door a nekk sa mo door a nekk di sa bopp waaye boo ko doxu rek doxatuloo ci ñaar yooya dara kon nañ wéyal ndénkaaneel ma ca sang la sang la julleeg fay bor ya ak lépp loo xam ne ni xaj na ca te ñu teel ko waajal dee jéem ko boromam ki dee kenn la ci ñaar ñii rek ku mu ci ñaar ñi nag dara du yéexe ki dee benn muy ku baax rek wala mu nekk di ku bon buy ku baax. nu ngeen ko gën a gaaw a jébbalee seen borom gaaw koo yóbbu ci yërmandee yàlla su fekkee ku bon la nu ngeen ko dencee lu bon jarul denc ci kër waxuma la cib dëkk gaaw leen ngeen génnee ko dëkk bi moo tax yonent bi ne kon ki ki génn àdduna ku ne kenn la ci ñaar ñii nu ngeen ko gën a gaaw a jébbalee boromam rek yéen ci seen bopp ngeen am jàmm muy ku baax ki ak ku bon ki daana wax ne ki bu génnee àdduna bu dee bëccëg la fu mu xendu lu dul ci bàmmeelam bu dee gudd la bu mu fanaan lu dul ci bàmmeelam alquran ne summa maatahu fa aqbarahu dafa la jël de te wal fa wa faali tartibi bi ittisaali wa sumali tartibi bi infisaali waxul ne suma amaatahu wa aqbarahu waxul ne suma waaye euh, dafa ne rek fa aqbarahu kon nag ca saasa rek nañ ko gaaw jébbal ko boromam nam gën a gaaw a demee yonent bi dafa daan wax na ñett bu leen ko yéexee bu leen yéexee ñett ñu ne lan mu ne nit ko amul jëkkër ngeen gis naw leen maye leen ko gaaw ab jànq dañ koy weer gaaw maye ko mu ne ñaareel bi ku génn àdduna denc leen ko gaaw jébbal ko boromam yaa mu ne ñetteel bi waxtu julli bu xasee teew loo jàppoon bàyyi ko nga taxawee julli gi moo tax mu daan wax imaam Aliyu ne ko salaasatun yaa Aliyu laa tuaxiruhunna salaatun ida aasanat ay xadara waxtuha wal janaasatu ida xadarat wal ayimu ida wajadat kuf an kon mu ne ko ñett yi boo xasee am daal bu leen yéexi ñett yi le xadis la bopp ah, tabaarakallaahu imaam ahmad ibnu majaha ibnu hibaan ñoo solo xadiis bi aïchatu ah, mu ne sama bàyyi seydina aboubacar bi mu génnee àdduna bi sab xaltine la te loolu la ñaanoon dafa ne woon ñaan naa yàlla bis bi sama soppe bi juddu génn ci àdduna yàlla na ma ci yàlla jël sama bakkan bi yàlla defal ko ca loola moom Seydina Aboubacar mu ne bu leen ma génnee guddi gi de balaa altine jee jeex na ngeen ma denc de ndax bis yëpp bis bi gën a jege sama soppe bi laa ci gën a taamu moo taxoon Seydatuna Aïcha mu ne inna Ababakar lama hadratul wafaatu qaala ayu kaalu haada qaalu yowmul nii qaala fa in mittu min laylati falaa tantaziru ila alxaddi fa inna ahabal ayaami wal layaali ilayya aqrabuha min rasulillahi salaa salaam imaam Ahmad moo génnee xadis bi kon nañ di gaaw a denc néew yi nam gën a gaawee bu ngànt amut bu ngànt amee na mu dee bitim réew ñi bëgg ko indi fii ci senegal wala mu dee fii denc nga xaw a jafe nañ ko gaaw ñi sang ko. buñ ko sangee ba pare nañ ko gaaw ñu jullee ko su boobaa même bu naree fanaan sax dañ ko war a jullee nga xam ne mel na ni kuñ denc ba pare julleeg ñaareel gaak ak euh, euh, loola lépp dafa ak sangaat ga ah, te fekkee dañ ko defaat sax sa sang gële rek doy na jërut defaat barkeelu xar rek lay doon waaye fekk na gee moom fekk doy na kon nag nañuy gaawee néew yi di ko taxaw bu baax a baax a baax Cheikh na Tidiane wax na ci wax ju rëy ci téere bu ñu tuddee Ifaadatul Ahmadiya yaa kon nag néew bàngoo génn na àdduna fay nañ bor ya nañ sàngaay la yéegal nañ ko fu kawe muur nañ ko summi nañ yére ya wàcce nañ lal ba kon gis nga ko ñetti xarit la amoon xaritam bile mi ngi koy tàggu de yonentu bee ko wax mu ne ku ne ñetti xarit nga xam benn xarit ba keroog boo génnee àdduna rek la njëkk a jàmbu mooy xalal ji moom dafay wax ne du ma dem fenn moo tax amul kenn ko mos a dee sa kër yi gunge la amul ko mos a dee sa entreprise yi di la gunge man taa am de ku dee sa coffre-fort bi du la gunge de sa compte banque ya du la gunge de terrain yi nga jëndoon tabax nga tabaxagut amul benn bu la cay gunge kooku mooy première xarit bi nga gënoon a bokk bi nga gënoon a sopp gënoon koo bëgg mën naa am sax yàq na sa digganteeg sa xarit yu bari moom xalal ji mën naa am yàq na sa digganteeg say mbokk yàq na digganteeg say soxna. man ngaa sàggan ba mu yàq digganteeg say waajur waaye ala kulli haal moom xarit booba noona keroog ba nga génnee àdduna la la jàmb ne moom demut fenn bokkut ci ñu lay gunge ñaareelu xarit ba mooy sa oto yeek sa am di jàmm yi nga amantoon fii ci àdduna dana ca am ñu la gunge waaye la gunge gay rëy rëy amul kenn ku ciy génn ku ciy paase buntu bàmmeel ba ya ci gën a xam xorma foofu lañuy ñuy ñenn ña sax dañuy wax ne dem leen denc ko ñu ngi leen di xaar ci jàkka ji su ñu ñëwee féete woo waaraate wa rek waaye duñ dem di fekkee suul ga ala kulli xaal kon ñoo nga dañoo taxaw taxawaayu xarit waxalal ja rek ah waaye nag beneen xarit bu mujj bi nag moom dafa ne sama xarit bii du ma ak moom ci kër gi de du ma xem ak moom ci mbedd yi de du ma xem ak moom ca jàkka ja de du ma xem ak moom ca xarmeel ya de du ma moom ca maa ngi moom ci ba ci biir pax bi kooku mooy jëf ja su baaxee moom ngay dëkk mu nekk ab lal nga tëdd ci kawam su bonee moom ngay dëkk ak yow yaay nekk lal mu tëdd ci sa kaw yàlla na yàlla musal ñu ci ndax bu ñu lay dugal ci biir bàmmeel bi rek bu nekkee ku texe dafa gis jëmm ju rafet solaay colaay gu rafet di xeñ xet gu neex daw di la dëgmal si nga ne ko yow jëmm ju rafet jii ànd ak xet gu neex gii ñëwal waay mu gën a gaaw mu ne waxuma ñëw de waaye man maay soppeeku lal nga tëdd ci sama kaw maa doon jëf ju baax ji nga doon jëf ci àdduna ndax ba ñu nekkee àdduna kat maa la waroon kon tey nag yaa may war yaa waroon julli bu jë bu fa nelaw neexee nga dagg ko wàcc sa lal bi dem julli war la yaa yaa waroon koor weeru koor fu mu gën a tàngee nga nangu mu war la jàng alquran fa mu gën a méttee mu war la jokk bokk fa mu gën a ñaawee mu war la saraxig dimbala ñoo teney fa mu gën a méttee mu war la mu ne maa doon jëf ja nga waroon jala waroon ci àdduna tey nag yow yaa may war soppeeku lal nga tëdd ci kawam tabaarakallaahu muy bànneexu ci sa kaw waaye nag su fekkee ne nag da nekk ku texeex di da ngay seen jëmm ju ñaaw ba mel ni golo wala mu ñaaw ba mel ni mbaam xuux di yu tuyum tuy ñëw ak nag xasawaay ga nga ne ko bu ma jege de mu ne waxu ma jege de waaye tey yaa ma waroon ci àdduna tey maa lay war yaa newoon ci àdduna bi di tëdd ci kaw jongama yoo takkut di war ci seen kaw tey nag maay maay soppeeku tey war ci sa kaw yaa ko defoon di def lu bon yaa waroon ci kaw xalal yu xaraam yi di ko lekk war ci jënd ci ay oto tabax ci ay étage war ci seen kaw tey ma war la de yaa doon war ñam yu neex yi noonu trian ci nit ñi seen gàtt ak seen ganaar ya ña nga waroon ko dugal ko ci sa biir bi tey maa lay war de moo taxoon kon ba nga nekkee ci àdduna yaa doon war yu neex yi te fekk dara teguwut ki ci yoon boo dee dugg ki sa bàmmeel moom nag moo lay mujj war la ñu hubbi la fenêtre ci safara nga jot sa genn wàllu mbugal su ko defee nekk ca nekk ca ba bañ ñu ñu sa ñi ñi ñi ñi ñi tëj sa ruuxu gi du mën a siyaara ji kenn kenn du ko mën a siyaara ji su ko defee sa mbokk yi léeg-léeg ñu laajte ana diw fekk na ndax nit bu ñëwee génn àdduna nekk ku texe waa barsaq dañ koy dalal comme kuy gàttandu ji gan bu wàccee ci métro bi mbaa mu wàcc ci autorail bi mbaa mu wàcc ci oto bi ni ngi jëlee bagage dugal ci biir kër gi xam na ñoo xam ne tamit bu ñu texee noonu la ñu amee ñu leen dalalee foofa su ko defee boo ñëw dañ leen laaj nag dañu lay laaj ana diw nga ne eh, kooku de léegi am na doom ba doom yi samp na kër ana diw nu mu defoon ak ñàkkam nga mu ne kooku milliardaire léegi la de ana diw mu def ak mboram nga nga nekk kenn gënu koo baax léegi danañ laajal laaj ba laaj ko dee ndeke kooka dee dafa texe xadi dañoo tëj rooxu ga kenn mënu koo siyaara ji moom ti mën da siyaara ji kenn mbokk ya foo ne ma ngay dund fekk dee na bu yàgg waaye fa mu nekk la kenn mënta joti moom tamit kenn mënu ci joti mu ngi mel ni fii rek ñi nga xam ne dañoo nekk ci kaso yi ñu tëj leen xam ngeen ne ku leen soxla yaa leen di fekki waaye ñoom mënuñoo fekki kenn ak moo xam luñ mën a def ba tëj leen moo xam dañ leen a tooñ tëj leen te am na ci wala ñoom dañoo tooñ ñi tëj leen te am na ci wala ñoom ci seen bopp seen mbir a leer agut ñi tëj leen fa di càmbar seen i mbir ñett yëpp am nañ waaye lu ci mën a am ku leen fekki yaa leen fekki ku leen gis yaa leen fekki fee nag bu ñu la tëjee ca barsaq ku lay fekk si fa fa xamul xanaa koo bokk kaso ga rek moo lay mën a fekk si muy ku texee di comme yow ñi boole seen rooxu yët tëj leen waaye nag fee nga nekk moom ah, ñi gaa yi texee yaa te yàlla ñu ci yàlla boole ah, doo leen gis ñoom tamit duñ la mën a gis nga nekk ci coono booba yàlla yàlla boole ah, musal mu ci kon nag tabaarakallaahu mbir màngook jar naa bàyyi xel mbir màngook jar naa bàyyi xel bu baax a baax a baax euh, ak li ci xaju lépp kon nañ ko ci bàyyi xel ak li ci xaju ci wàll waawa noona euh, yàlla na yàlla musal mu ci ak texeet yi su ko defee kon nag waxoon naa la koog li ci xaju yooyu yëpp euh, xaritam yaa ngoog jàmbu nañ ko benn xarit ba rek mooy bi dëkk ak moom ci biir bàmmeel kon nag nañ ci bàyyi xel xarit booba nañ koy jokk nañ koy bàyyi xel te di ko liggéeyal su ko lëggee yàlla ci mbaaxam mën nañoo àtte ci yërmandeem waaye xamul kenn koo xam ne sa jëf mën na laa dugal aljana yonentu ba nga ko waxee ñu ne ko ba ci yow mu ne ba ci man xanaa yàlla jox ma ci yërmandeem rek waaye jëf ju baax mooy yóbbu nit ci yërmande yàlla yërmande yàlla yóbbu la ci aljana waaye nag ba fi nekk ne yërmande yàlla jéemoo lu baax waxoo ko jëfoo ko ah déedéet nag ah, yow euh, yërmande gi doo ci man a xegg ba yowmal qiyaam mu ngi mel ni ngay ndakaaru laa bëgg leen tëdd sa néeg génnoo nàmm say tànk mbaa nga dugg oto doo ba yowmal qiyaam doo xegg ndakaaru euh, kon nag yooyu rek lay mën a doon dañ ciy bàyyi xel euh, jëf ju baax euh, muy ne dañ koy liggéeyal su ko defee nag génn na àdduna nañ ko gaaw ca sang ma mi waxoon naa ko fardu kifaaya la ñenn ñi buñ ko xenoo rek mu wàcc ñenn ña bu ko ñenn kenn defut ñoom ñëpp ñu bokk am bakkaar sangam néew waxoon naa la ko buy ñaari way dencate kenn ku ne mën ngaa sang sa morom te waxoon naa la ko euh, su ko defee timit ñooña buñ fa nexut wala buñ fa nexee kuñ dénk ki mën naa sang ni moom laa dénkoon ñi sang bu dee góor la dañ seen moromam góoram yi jigéen ñi seet jigéen ñi sang ko ak la ca xaju yooyu waxoon naa la ko su ko defee nag kon buñ ko sang bi comme ni ñuy sangee sangam janaba rek moom la ñu sangee niiw Ah, ndox mu njëkk mi danga nga koy xob bi comme ni ñu xobbee ku génn àdduna su paree nga indil ko ndox moo xam ne si déem lay doon mooy nooyal cër ya maneen ndox ma nga def ca kaafoor parfum man ko koo sotti xet xet ak néew ga mën a dem xet goo xam ne gu neex gu jàppandi lay doon mën a mën a ñëw ci moom su ko defee nag gannaaw bu ñu la sangee tabaarakallaahu ah, nañ la sàng sàng bu dee góor la gën a bëri ca càngaay ga mooy juróomi yëre ndax mooy lu xëpp lim daan sol bu dee jigéen li xëpp ca càngaayam mooy juróom-ñaari yëre mooy ci xëpp lim daan sol su ko defee loolu nañ ko ko sangee su ko defee nag gannaaw sang nañ sang nañ nag ñi xenu ko tabaarakallaahu andi ko ca buntu jàkka ja donte dugaloon nañ ko ci biir jàkka ja tamit baax na ndax néew laab na mën naa dugg jàkka saxaaba yu bari seen biir jàkka ji lañ leen jullee ci biir jumaa yi su ko defee tamit bu ñu paree def seede ya taxawal sàppe ya ñay seede nañ wax rek lu rafet yàlla bëgg ñu texe mu defal ñu promotion waaye moom kenn mën a seede ndax moo tax mu ne wa kafa billahi shahidan waaye ku ne ne ma cay seede na wax ne ma caa bëgg a seede waaye mu wax ma koo bëgg a ndax yow mënoo seede koo xam ne wax na loo déggut jëf na loo gisut nekk na foo newut kon nee ma caa bëgg a seede li nga fekkee waaye ma koo bëgg a moom kenn ko mën a wax mu yàlla mi nga xam ne maa yakunu min najwa thalathatin illaa huwa rabi'uhum wala xamsatin illaa huwa sadisuhum demeet baayaat ya jeex moom kenn ko man foo nekk di kenn mu ñaareel la ngay ñett ngay ñaar mu ñetteel la ngay ñett mu ñeenteel la demeet moom kenn ko man su ko defee mooy ka xam ne yàlla mu sirra wa axfa su ko defee nag bu bëggee bëgg ñu texee nag moo tax mu ne yéen xeetu yonantu bi yéen rek ko xam nag yeneen xeet yi xamuñ ko woon de may naa leen ngeen di seede seeni i niiw Ibrahima amu ko woon ak xeetam wa yonantu yàlla Adama ak yonantu yàlla Noox ak Yaqub ak Yuusufa amuñ ko ñun rek la ko yàlla jagleel su ko defee na ngi ñëw seede seede ne jullit xaq na ngi ku mën a jaamu yàlla ngi ku doyloo ngi ku maandoo ngi wax a wax ba wax ja xotteeku yàlla ne ah li ngeen wax ak li ma xam de wuute na waaye banaa li ma xam danaa ko xatt ci li ngeen xam. su ko defee loolaa koy may ak texe waaye ku ne ci ñun ku yàlla xatte ci lim xam ci yow rek nga dem safara waaye yàlla nag dafa ñuy xatte li nit ñi xam ci ñun su ko defee moom mu bàyyi lim xam ci ñun ci lay mën a dëgg nag dugal ñu aljaana ci mbaaxam gi ak yërmandeem gu yaatu googa pare nañ xenu nañ yóbbu nañ ci armeel ya fekk gas nañ ko gas nag jarul muy xóot ba xëpp suuf la ca gën a kawe rek moo xëpp yërmande waaye daal na xóot xóotaay bu day nii bu yàqoon du xeeñ waaye tamit ay muus ak ay janax ki kaña ba ci ay bawkat yi duñ ko mën a sulli rek loolu rek doy na su ko defee nag néewam ni ndeyjoor néewam néewam gàtt càmmooy ab gàtt boo koy rendi bu la féetewut càmmooy bopp ba doo ko mën a rendi waaye am néew na bopp ba ndeyjoor la lay féetee nga defal ko ci kenn ki ñetti xeeti bàmmeel yi moom ko am na chiq am na eh, waaye tamit lax da am na lax da moom lañ defaloon yonent bi mooy gas a gas ba mu xóot nga gas ca penku ba. man caa dugal néego ba nga xam ne bu ñu sotti woon suuf sax du tëdd ci kawam siq nag mooy gas gas ba mu xóot nga gas ca digg pax ma dugal ko ci xam ne du mën a tëddu ci ñaari côté yëpp du tëdd jëm nii day nekk rek directement a omqu nag mooy xóotaay ba lépp a xem nu mu xóotee nga dugal ko ca yooya baax na waaye ba ca gën mooy laxdu moom lañ defaloon soppe bi di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama kon yi la yëpp mooy nit kon nit ki fii lay mujj ah ba mu génnee àdduna ba ñu ko tuddee ko néew xam naa ko néew la moo tax kon àdduna bi booyee boo nga néewal lépp ci néew rek ngay mujji ah mi ngi nii néew na lool man ta waxati man ta kàddooti bàyyi na xalam ci gannaaw ak njabootam geeg lépp su ko defee na kon ku néew la ah néew nag boo ko boo siifaree xarafa mi 66 la lay jox mu dolloog allahu muy 66 moo tax nag ñu ne ah jébbal leen ko boromam kon jël nañ 66 delloo ko ci 66 rek. su ko defee kon nag lu jar a bàyyi xel la lu dal xel la tamit nag kon nag wax naa la sang ga wax naa la sang ga tabaarakallaa wax naa la jullee ga jullee ga nag ñeenti kàbbaar lay doon nga digale ko ñaan bu ilimaan ji juumee indi juróomeel bu ko kenn xaar sëlmal leen bu juumee def ñett te mu bari lool aa buñ ko sàbbaal nañ mottali ñeenteel ba rek te ko defee te sëlmal kon nag jullee néew a ngoog ak li ci xaju néew yi nag dañoo bari ay façon am na ci néew boo xam ne yow dangaa ngaa moom carrément mu ngi nii kon danga ko war a jullee jàkkaarlook moom buy ci masaabu imaamu Malik néew boo jàkkaarloo waroo koo jullee boo jàkkaarloo nag moom te la xëpp ca jëmm ja fàddu na doo ko mën a jullee buy ci imaam Ahmad Shafi'i ñoom dañuy jullee néew bu fàddu. ñoom ñëpp nag dégginu najaasiw bi rek la najaasiw ba mu génnee àdduna ca Éthiopie yonent bi nekk ca Madinatul Munawwara moo digg ngi def ñeenti sàppe mu jullee ko ay imaamu Saafi nag yonantu bi lañ ñu royloo kon kay mën nañ ko caa roy laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun hasana imaamu Maalik ne loolu xaasiyatu lu boo xam dafa bokk ci xusuusiyaat yi ko yàlla jagleel te mooy jullee ku fàddu te moom moom mooma sax ñen nit ñi la fàddu waaye moom fàdduwut ko jàkkaarloo naag moom ba mu koy jullee. comme ñun xamuñu maqaam booba nag nañ jullee ku ñu jàkkaarloo kuñ jàkkaarloo hut ñu ñaanal ko yàlla ndax ñaan foo ko sànni rek borom jot ca lii mooy gis-gisu imaamu Malik ci jullee ku fàddu mooy gis-gisu imaamu Saafi'i ci jullee ku fàddu su ko defee nag julleeg néew ci Malik ñaan rek la bi ki njëkk dangay tagg yàlla julli ci yonantu tubi tagg yàlla nag mooy laa ilaha illa waxdahu laa sharika la lahul mulku alhamdu ala sin qadir yuhyi wa yumiitu ala kulli qadir laa ilaha illa waxdahu laa sharika la yuhyi wa yumiitu ala kulli qadir nga julli ci yonantu bi door def ñaan nga ci allahuma innahu abduka wa bunu abdika wa bunu amatika ba jeex soo mënul ñaan nga ne allahuma ixfir lahu warhamhu waaye ku mel ni imaamu Shaafi yu ngiram ak imaam Ahmad ibnu Hanbal ñoom seen julleeg niiw ya dañ cay jàng faatiha ba mu jeex bu ñuy def ñaan ya door ko caa def loolu seen tegtal la ca moo tax ñuy wax ne ab néew kenn du ko jàngal faatiha imaam saafi yu delloo na leen ne leen néew mën nañ ko jullee bu ñu ko jullee mën nañ ko jàng faatiha imaam ahmad tamit delloo na leen ne leen mën nañ ko jàngal faatiha ak imaam im ahmad ibnu hanbal naka noonu abdulaay ibnu omar bàttale woon na bu génnee àdduna nañ ko jàngal aay yi njëkk ci suratul baqara ak aay yi mujj ci suratul baqara kon loola dara nekkut ci yooya kon yu jara a baxi xel la tabaarakallaahu kon loo gis suñ mag ñi di jëfandikoo rek xamal ne làmbuñ ko mais dañ koo daj yow nag boo fi nekkee di làmb te dajuloo man ngaa weddi ki daj te fekk na xamuloo li xew su ko defee nag kon nag nañ bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax ak li ci xaju kon nag lii laa waxoon danaa la ko yokkal ci julleeg néew ak waajaay wa mu fekkee waxtaan ya jiitu woon in uridu ila al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu unni unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu